salaamaaleykum mbokku Sénégal ñoo ngi leen di jaajëfal di leen euh, gërëm ci taamu bi nga xam ne euh, faral ngeen koy taamu pour site bi di comme mu gënal leen ci site yi fi nekk ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne ñun Sénégal ñëpp dañu cee ràññee ñu leen di sant bu baax baax ci fi ngeen mënta nekk ci Sénégal ak dans le monde ñu am mbégte dalal fii kii di madame Diéguy Fall mu nekk directrice. de la promotion des droits des enfants et de la protection ou bien direction de la protection des enfants et de la promotion de leurs droits noo ko mën a waxee je pense que ànd na euh, soxna si ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal nga bokk it euh, mouvance présidentielle ñu ràññee la ci prise de position souvent virulente yi nga xam ne da koy jël ci plateau yi ñu bàyyi la nga présenté nuyu suñu mbokk internet bi salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi lay nuyu di kontaan lool ci invitation bi et tu as parfaitement raison Sénégal am na lu ngeen xàmmee mooy seen promptitude ci le traitement des informations mm. et ça je tenais vraiment à vous féliciter par rapport à cela et wax leen kontaan naa lool di ñëw ci invitation bi Djiby Diop Fall laa tudd certes man maay directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants mu soog ki nga xam la yàlla dénk réew mi muy mm. ko ma di ko ci sant di ko gërëm suñu de la femme, de la famille et de la protection des enfants. En même temps, je responsable du programme enfance du Sénégal. donc maa ngi nuyu ñëpp di sant di gërëm waaye balaa may dugg sax ci waxtaan bi ma bëgg nga may ma tuuti ma jaale ma jaale Sénégalais yi ndax nag dee yi woon na dee yi na ci accident yi yàlla la soog. waaye nag ñuy ñaan ñi tam nañu gën a góorgóorlu may jaale ministre de la euh, de la santé madame Xemes dafa jëkkëram dafa wàññeeku. donc may jaale waa Turquie ndax nag suñu ay voisins lañ ak lu mu mën demee lu mu sori sori su suñu ay mbokk lañ ndax nag lu mu dee dee bokk nañ diine gi may rafetlu le fait que président Macky sa nag déployé na ay nit yu dem foofu. ñu jàppale leen waaw te lu ndaw ndax Erdogan déplacé wu na le président dem ba foofu xool leen Macky rafetlu mais. kër gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax nag dëkku dina lañ ne génn nañ ci kasu rajab génn nañ ci màgg lu jak saaw ñu ngi ci appel bi di ko dund di ñaan yàlla may ñu koy fekkee ak yu bëri di ñaan saint carême pour tous les chrétiens et catholiques du monde entier rafet na euh, ñu ràññeele déjà ci ci teneur sa discours ci plateau yi choix la wala contexte bi moo war a lu mel euh, euh, je ne pas trop parler de moi parce que dafa jafe mais je pense que sama deret la man déniyanke Euh, surtout sama bëggee laa jéegi laa loolu moo tax jéegi nekk si biir euh, euh, ceddo laa jullit laa nag akam taalibe cheikh laa mais samay ay maam ay ceddo lañu man pour man ceddo valeur la dafay tax loo wax moom ngay def hmm. dafay tax koo gëm moom ngay àndal dafay tax ànd ak nit ki danga koy défendre dans l'honneur boo koy bàyyi nga wàcc ko personne n'est obligé ànd ak kenn surtout le militantisme surtout si politique loolu moo tax damay défendre président Macky Sall beaucoup de rigueur damay défendre président Macky avec beaucoup de conviction damay défendre président Macky Sall et l'ensemble de son gouvernement ak képp koo xam ne rek pare nga pour ànd ak moom te c'est ma nature mais na dañ ma koy reprocher parce que je le fais avec beaucoup de passion je le je suis une politique je naturellement passionné et mm-hmm. ñu nekk ci période boo xam ne lu euh, raar la selon ñenn ñi même si on sait que Sénégal quand même yàgg na am ay jafe-jafe politique. 1962 mm-hmm. fii la ñu fekk. quatre-vingt-quatorze su ma juumul tamit euh, ak ñoom Abdoulaye Wade loolu fii lañ fekk euh, je pense que ba léegi ñun du lu ñu lu ñu dundoon en mille neuf cent soixante-deux ba plus de cinquante personnes ñu leen di faagaagal fii ci buntu assemblée nationale ba léegi tolluwuñu foofu euh, li war a coow li nag mooy mbirum élection président Macky saal war na dem warul dem yéen ngeen jàpp ne par force mooy seen candidat en 2024 pour un autre mandat de plus pour l' opposition euh, nga jàpp ne deuxième quinquennat la yéen ñii nekk ci pouvoir bi mhm. euh, pourquoi ngeen jàpp ne yéen ci dëgg-dëgg mhm. président Macky Sall quand même après deux mandats mhm. war na man a bàyyi en 2024 ngeen tànn sax beneen candidat mu demal leen mon frère le droit d'être candidat est constitutionnel bu fekkee yoon la ñu wax toute personne majeure am 18 ans ba 70 ans dans notre constitution tu as la possibilité et le droit de dire je veux être après nag am na ay instances yoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy seet càmbar te ñooñu nag du tey lañ koy remettre en question wax nga de 1960 à nos jours il faut qu'il y ait le respect de nos institutions parce que l'État il est froid. l'État va demeurer fort quel que soit ku parce que nag bu fekkuloon loolu kon bu Ablaye Wade demee Moussa waxee avant Ablaye Wade bu fekkoon était très fort 40 ans mu toog ko kon bu demee Moussa waxee non il y a des choses qu'on ne badine pas avec nous sommes dans un état de droit le président Macky Sall a le droit d'être un candidat il n'a pas encore 70 ans maintenant nag celui qui doit apprécier c'est le pouvoir euh, le conseil constitutionnel ñu bàyyi leen ñu bu ñu apprécier sax te doyu leen ah qu'on fasse confiance à cette population majeure à cette population mature à cette population boo xamante ni sans commune mesure regarde la ceinture bi wër tout le Sénégal. Mm-hmm. ci takk. au Mali. lan moo la moo ñu wutale ak ñoom.

su bëggul bëgg naa waaye lu mu des te ànd naa ci ak moom. léegi lan ngeen di doy waxu président Macky Sall bi wax ne bii mooy sama dernier mandat mu bind ko ci livre am waxaat ko ay yoon yoon wala ci diggante bi dafa am lu soppeeku. li ba soppeeku mën na bari waaye damay balaa may àgg ci président Macky Sall damay àgg ci yàlla àdduna ñaar moo fi am li nga xam ne yàlla moo ko teg li nga xam nit ko teg ñaari loi yooyu la ñu mën a am li moo ko teg dog mu la te kenn du ko discuter dañ koy topp li nga xam ne nit moo ko teg mooy ñun ñoo groupe ñu tànn ay nit ñu jël ay loi ñu teg ko ñun ñu ñooy topp loolu yow yàlla si yàlla am ci day xiin ba mu xiin ba nga yaakaar leen mu taw ma génnee jant c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité il faut relativiser les choses rien n'est figé damay dem fu gën a sori di la wax les français dañoo habitude di wax c'est les imbéciles ne changent pas et je demeure convaincu de cela même il n'a pas encore changé d'avis même si monsieur le président Macky am na droit ni bëgg na doomu bu jigéen téye na loxoom ni ko bëgguma nga nekk candidat président Macky Sall est un être fait de chair et de sang tey jii am na lu bëri mën na ko neex mun am lu bëri lu ko naqari te amul droit sax wane ndax ki mu doon ndax li ko pouvoir li ko yàlla jox man bés bu taxawee ni nekk na candidat du ma ci am gàcce c'est quoi l'éthique c'est quoi lan lañ ko mën a wax tey ji dindi nañ débat bi jëlee ko sur le plan juridique jëlee ko sur le plan juridique yóbbu nañ ko sur le plan politique amatul nañ ko wax le plan politique légitimité ñu naan l'éthique c'est quoi définissons ça la perception qu'on a des choses qui dépend des sens mooy bët bu ma koy xoolee bakkan bi ma koy nooyee gémmiñ bi ma koy waxee wala toucher loolu c'est subjectif le président Macky Sall am na lu mu bëggoon en l'instant T le président lu mu xool fu mu mujjee waaye ku ko waxoon boo tàqli woon nga Ablaye Wade trois ans di nga nekk président est-ce que ko gëm xool mu mujjee non il faut qu'on arrête ce débat de bas âge am na fu mu fekk Sénégal am na fu mu ko yóbbu am na lu mu yéene te man fu loolu laa gën a gëm c'est mon président de l'espoir mon frère tu sais qui pose problème c'est quest qu'on va vendre à la génération future c'est le lan la ñu fas yéene jox mégawatt yi mu fekk 500 mégawatts en 2000 mu ko 1600 mégawatts en 2016 te lool moo gën a ndaw man mi dëkk Podor bu ma dee oto bi sa taree ji muy kurum kurum man mu def ma tali ba bi gis nga li xew barki démb Kaffrine 6 kilos accident bu fa am amul kenn ko xam indi nañ ko hôpital Dakar mooy li nit mën a tuub baaraam li nit mënul tuub baaraam bourse familiale yi ku musul liggéey ku musul fayee mu jox la vingt cinq mille par trimestre mu ci mu dem trente cinq mille par trimestre waa Dakar dañ koy xeeb waaye ki nga xam ne mën na si jënd gaz fayal doomam jënd ko teer jënd ko bic jënd ko cahier il nekk ànd na ku la neex je suis d'accord ku ne mën nga critiquer je suis d'accord des hommes qui n'exercent pas bien le droit comme on le parce que nag ku nekk ñu la yaree moom nga yóbbu fa nga demee nañu waxante dëgg président nag yarul ñëpp yaakaar lay am mu fal la mu teg la yenn saa yi nga décevoir mu teg la yenn saa yi nga dem traduire la parfaite vision li mu bëgg a nañu gëm yàlla te xam yàlla fale waaye nag qu'on fasse confiance à cette population sénégalaise xam ne heure bu fa jotee 2000 ba tey ñu ngi naan day tàkk. 2000 hmm. waxuñu woon tëj leen buntu yëpp. 2012 hmm. ñu ne waat day tàkk fan lu mujj ñi ñu di foo moom mu dugg ci biir dëkk bi. te man en son temps ànduma woon ak moom mais je lui fous un grand respect tu sais pourquoi ba mu xamee kenn xastewul bu ñaaw tontuwul amul gémmiñ te ragaloo d' accord léegi nag ay gaa taxaw ñu mel ni opposition bi nee nañu euh, dëkk bi euh, par force président Macky Sall dafiy dafiy du bokk en 2024. Euh, am na ci ñoo xam ne comme Ousmane Sonko ba dem na ba yëkkati ci ay kàddu yoo xam ne ñu bëri ñaawlu nañu ko ay gàtt sa gàtt sa feeñ na si président dinañ la fekk sa fa la jëlee su bu yóbbul sama bàkken dinaa yóbbu bàkkenam ay kàddu yu yoo xam ne quand même jib na ci te mu mel ni koo xam ne foofu ci euh, ban réponse ngay apporter au Ousmane Sonko prêt à ah. découdre avec vous euh, au point même di laisser son sa vie. rarement laay wax ay wax du seetaan ko xam sax mosuma seetaan ay live am yooyu muy def waaye yéen je vous lance un appel des journalistes vous constituez ngeen ne mu di leen woo saa su ne di wax lu ko neex ngeen di jàkk di ko xool. pourquoi ngeen di nangu moom du leen may yéen foo leen ko posé question. am na def conférence waaw may ma tuuti def point de presse toujours si la dëkk. waaw moom. anytime te pourtant sama président bu ko defee ngeen am loo leen ko wax. mënuñu ko président président waaw moo tax. jërëjëf. ba nga xamee ni président Macky Sall mooy président na jéem jàmpale ni da koy génne barki dee moo Ndiaye na sant yàlla.

neuf moo gën a ndaw yow xam nga ni parce que tey président Macky Sall bëggee xam nañu wax fi xam ko sa téléphone ak numéro bu mu mënti doon bu nekkee WhatsApp su ko bëggee xam mu xam ko boo ko fayoon mu réer nga duñ ko suuflal buñ ko bëggee xam-xam ko on ne joue pas avec nos institutions faut arrêter am na droit contre l'homme politique 2019 ñu gagné élection 58 pour cent benn homme d'état mosu ko gagné fii ci biir Sénégal ñu topp kooku di élection ba tey ji ñu ngi ci 2023 faut qu'on s'arrête nañu taxaw benn instant ñu wax liggéey réew mi lan lañ présenté ñoom lan lañ la présenté en tant que sénégalais bu njëkk dañuy amoon nañu projet dañuy jubal mujj bi ñu jóge foofu ñun il faut qu'on arrête de vénérer des hommes nañu vénérer Dieu wala dañuy wel li fi Sëñ Tuubaa def dañuy wel li fi Hajj Maalik def dañuy wel li fi Baye Niass def dañuy wel li Seydina Limaamu def faut qu'on arrête de jouer avec certaines sensibilités dañu bàyyi manipulation yi te ñu xam ni gis nga celui qui détruit la vie des gens par le mensonge verra sa pouvoir hmm. yàlla koy joxe président Macky Sall yàlla jox na ko te xëy na sax amaana fam ko yaakaaree wu loolu moom Ousmane Sonko bu fekkee la muy woote dëgg si moom te nag booba ba léegi ñu ngi tase moom élection di ko teg ci suuf nañ dem 2024 njàkkaarloog suñu waay de mu seet waaye gatsa gatsa bi yéen journaliste waru leen seetaan man dama ciy jaar tey parce que dama war a yar man dama nekk yaay nekk jigéen waaye wax jooju est-ce que rafet na ci koo xam ni ëllëg yow yaa war a toog avenue Roumbé nañ waxante dëgg te yàlla rek tax Ablaye Wade faisait partie des opposants les plus virulents mais Macky Sall wax na fi Ablaye Wade gënul pale tamit mais est-ce que mos nga dégg mu saaga mos xaste mës nga dégg Macky Sall le président wax wax bu ñaaw kenn Ousmane Sonko su waxul mortal combat wax na rey wax na bakkan wax na gatsa gatsa mais il faut que ngeen fustigé ko c'est pas ça le prototype sénégalais non. nous ne sommes pas comme ça nous ne sommes pas aussi violents et puis mirage la bu ñuy jaay cette jeunesse. mais moom violence rek la am waxam rek la am. moom il amul violence wax la am.

parce que c'est qu'une institution kooku dafa teel a nekk directeur nekk nekk maire xam ce que c'est xam les tenants et les aboutissants moo tax du si sore Ousmane a liggéey chef de service sax mosoo koo ne nga taxu fi nga da nga bëgg nekk dëkk yor dëkk bi ñun la d'accord nañu ak yow mais ndànk duñu nangu muy xoqatal mbaa muy xoñangal kenn ñu di ko ci wàcc man maa mën a bañ a ragal te may jigéen yor njaboot sakantuma Macky Sall ak fa mu jaar ak ñeneen ak ñeneen ay ñoom Abdoulaye Seydou Sow wala may mën a si soxo wala Thérèse Faye whatever ragaluñu fu ñu jëm ñeme nañ ko ce monsieur nous a donné de l'espoir il nous montre ce qu'il nous lègue à la génération future ci dellu ginnaaw ku bëgg daal ci kaw suñu kaw ngay njëkk daal ba pare. kon 2021 nag day dem. je n'en suis pas sûr waaye man bu ma déggalee mbaa mu déggal la COJER nationale mbaa mu déggal maire mbaa mu déggal Macky 2024 mi nga xamante ne ñoom Thérèse ñoo ko yor mbaa mu déggal le mouvement national des femmes mbaa mu déggal la CCR c'est-à-dire la les cadres républicains de Abdoulaye Diouf Sarr mbaa la plateforme des femmes cadres avec Aram ou bien euh, euh, euh, Mariama Sarr mbaa mu déggal képp ku citoyen lambda le président Macky Sall dina taxaw parce que c'est 58 pour de cette population waaye moom moo xam li gën pour moom moo xam li gën pour Sénégal te lu mu ci décidé rek dinaa ànd ak moom waaye su doon sama sago mu nekk sama candidat. di nga ko xelal yow boo toogoon ak président da ko wax ne président maa ngi lay ñaan nga nekk candidat en 2024 di nga ko wax. xelal ma ko dama ko wax mu dégg ko dama ko wax bind ko. def ci point de presse def ci conférence de presse préparé woon ñett de mobilisation pour le 28 janvier fii au niveau de la du monument de de la Renaissance avec des anciens du président Macky Sall ñoo xam ne ba ñuy ànd ak président Macky Sall minutes man sax ànduma ak président Macky man président Macky pour ma taxaw ak moom ni ko dama bëgg nekk candidat mooy géej gi am na ndox ndax ñëpp xam nañ ni ma li may wax te même bu doon tam lu ma te mu war a mën a defar réew mi wala ma xalaat am na benn ndëngate parce que nag nit kese la mën a doon waaye les informations qu'il a je les lu xam xaw ma ko waaye hmm. ragalu ma ko man du ma lu ne ak dossier Adji Sarr mu jëwul fenn jàll may lan borom ndollu ak maam Mbaye Niang bi nga xam ne jàpp ngeen ne jékku na ko fu mu toll nii fàtte ngeen Adji Sarr yaa ngeen di ci affaire dossier maam Mbaye Niang. man nekkuma ci dossier kenn je lu tax ma def droit. Parce que je veux que le droit soit dit. Je que la justice soit faite. Pourquoi est-ce que je me suis engagée en politique Parce que je crois en l'état de droit. Pourquoi est-ce que je suis une libérale Parce que je crois en deux fondamentaux. C'est le libéral, la liberté et la responsabilité. dama ne Ousmane Sonko bu fekkee li ñuy wax moo ko def na taxaw ci yoon bu dee li ñuy wax def ko itam dafay taxaw ci yoon parce que nag am na droit am li nga xamante ni moom mooy présomption d'innocence mm. waaye nag Adji Sarr bu dee li nga xam ne dañoo wax dañ ko ko defal am na droit justice protéger ko waaye Mame Mbaye Niang tam am na droit justice protéger ko waaye moo moom Ousmane Sonko ki bëgg a diriger suñu dëkk bi ëllëg il faut mu muy muy taxaw ak askan bi muy wax wax joo xam ne dafa am te bu ko waxee mu capable indi ay preuve bañ di wax damaa jaawale IGE wala ma fàtte dossier bi Ziguinchor rek wala note de service il D'accord. Ce pays doit être géré par des hommes sérieux. Il a le droit d'être un candidat. Je le lui conseille. J'ai le droit d'avoir un candidat. Il faut qu'il me le conseille. Il faut qu'on arrête l'apanage de la pensée unique. ku ne am nga droit ànd ak ku la neex ku ne am nga droit far fu la neex waaye la ngay wax na nga ko ñeme te ñu bàyyi xaste bi ak saaga bi ak wax ko ñaaw da baax Maalik radiyallaahu taala an sama sëriñ bu baax boobu nee na ñuy waxante baax baax yi te suulante ñaaw ñaaw que ku ko sa doom def na ko d' loolu am na solo euh, yéen benn bokk yaakaar surtout yéen waa APR li ñu leen di tuumal euh, ñàkk tijji seen i téléphone yi vous êtes inaccessible militants yi dañ koy reproché dañ koy joytu lu bari dimbali woo leen président ñu bëri loolu la ñuy wax di wàccoo leen ci base bi taxawu en tout cas responsable yi nga xam ne yàlla mayu leen dëmbu tànk est que en dehors de l' impact de l' opposition loolu gën bokkul ci li lay gën a yàqal ci landerneau politique bi loolu dafa parce que lu nit ñi wax rek dama xëy na mën na nekk. Douma Antoine Diom Yalla dogal nag parce que yor ma renseignement généraux je fais partie des élus des nommés avant d'être nommé j'ai été élu conseil départemental à Saint-Louis j'ai été nommé par le président Macky et j'ai l'habitude de dire chose dama naan président bu fi yemoon sax mu neex imagine une parcelle du pouvoir du président jox la tey jii ma am possibilité génnee mille cinq cent et quelques enfants nigériens de la rue en quarante huit heures et parmi cent il j'ai eu un bu ma mënul expliquer nit. 800 du Sénégal. non ñu c' est des Nigériens exclusivement leur état a affrété deux avions ñu dugal leen si. Hmm. ni sama xol seetee xam nga mooy lan j'ai pu rendre service à la nation de mon pays et c' ce que dama la gën baax est ce que dama la gën juddu déedéet yàlla moo ko dogal kon ku président Fall mooy jël na parcelle am de son pouvoir jox la ko ubbi leen téléphone yi bu fekkee dañ ko tëj man de sama mbas ñeen xam ko. ndax sama communiqué chaque semaine mu jaar fii au nom de la plateforme des femmes cadres et de Benno Bokk Yaakaar chaque semaine ñu def communiqué bu communiqué conseil des ministres génnee ñu def communiqué ñu wax ak sénégalais yi lan le président def ci biir dëkk bi lan le président def sur le plan politique lan le président def sur le plan international qui vient de mandat au niveau de l'Union africaine def lu mujj si ay lu musul am ci mën lépp a lépp sax deful ñëpp xees defu ñëpp ñëw defu ñëpp am tamit ñuy def ma ñaaw wala def ma rafet ba ma xees ba ma nekk doomu amu ma <laughs> waaye pour juste pour te dire que nit ci boppam matewul hmm. kon waaye man de kama yor xam naa ni yéene mu am ci Sénégal mat kon képp ku mu teg ci place rek jéemal mate loolu ma ne du ma ci dellu ginnaaw ma am munu ma tagg sama bopp nag day metti ko ma mën ko wax hmm. waaye jéem naa ko bokkal ñaw fa ma dëkk muy naan ànd seeg sama monsieur le maire monsieur le maire Mansour Faye. d'accord lu ma am. Hmm. bokk naa ko am na solo téléphone. bu ma bu ma am dafa métti nag. Hmm. xoolal ngay xëy 6 heures du matin nga liggéey fekk ay dossier nga war a wuy waale ay téléphone en même temps si sa famille si sa liggéey ak si politique bi ak ci journaliste bi lay posé question dossiers yi toog di la xaar moo war a lijjanti xale yi nekk ci mbedd bi moo war a lijjanti sëriñ daara yi moo war a lijjanti sama madame la ministre Fatou Diané ci kër ga may xaar moo war a sëy sëy bi war a lijjanti doom yi seet automatique bi seet douche yi nga seet na ainsi de suite dafa metti waaye nag ku am ndombal tànk yàlla neex te yàlla teg kenn loo xam ne mënoo ko nañu gën a jàppale président Macky Sall jàppale base surtout loolu am na solo duñ tëj te duñu aborder toujours sa secteur yow sa domaine euh, sa direction protection des enfants jàngal xale yi tamit ci la bokk xale nigérian yooyu ñoo ngi fi ba tey ndax da ngay bi wala am nga beneen opération boo boo boo teg benn plan boo teg pour mën a jàmmal ak situation moi c'est l'état du Sénégal comme je te l'ai dit direction la bu nekk au niveau du ministère de la femme de la famille de la protection des enfants qui est dirigée par madame Fatou Dané et qui a une dégage qui traduit la vision de son excellence qui se trouve être la main ouvrière du président concernant les femmes concernant la protection même des enfants am na loo xamante ni benn programme de retrait des enfants la tudd li ñu def pour nigériens yi am na ñoo xamante ñi dem moom leer na man du ñoom ñoo ñëwaat parce que seen état daf leen sanctionné hmm. mais dafa am ñeneen ak maliens yi tam nañu waxante ndax dañ ñoo jege te guerre mi ngi foofu hmm. am ñoo xamante aussi c'est des sénégalais waaye je lance un appel mais l'éducation revient à la famille. Mm. je lance encore une responsabilité aux femmes ñun ñooy jur doom yombul doom doo ko bëgg rek am ko doom du kesoo bëgg nga rek am ko da nga koy bëgg sabab ñaan mu neex suñu borom moom may la ko nañ tey. Mm. la place de l'enfant ce n'est pas dans la rue. Mm. waaye l'État ne ménagera aucun effort on va sanctionner positivement pour ñi téye parce que am na ay daara yoo xam ne ñu ngi fi di téye xale yi. di leen jàngal di leen tàggatoo di leen teg ci yoon te yàquñu leen ñu am. lijaasa si alxuraan am lijaasa si école waaye nag am na ñoo xamante ne man je des sa laa leen tuddee te ragal ma koy wax ndax dañuy jël turu diine bi di ko utiliser te fekk di loolu. ndax xale yi génne mm-hmm. laaj ko junni ni ko boo ko indiwul ma dóor la. ko mm-hmm. ko defoon te yàlla mm-hmm. tax ndax yàlla nee na aw mu lu gën nit ci suuf nit mooy xalifatulaay fil ardi te dinañ ko xeex ndax président Macky Sall dafa gëm ce qu'on appelle la protection sociale dans tout son ensemble. kon ñun am nañ ci ay jéego yu ñu def duñ ci dellu ginnaaw ñu ngi ci waat di def ay marut di génn si di seet di waxtaan ak ñi parce que yàgg nañ delloo ñuy dellu ñëwaat léegi dañuy xool lan moo tax ñuy dem parce que y a ce qu'on appelle la réinsertion socio-économique ou bien sociale li tax xale bi di ñëw wala li tax waajur bi di démissionné donc c' est quelque chose qui est assez lourd du jeex si benn fan xëy na du jeex si ñaari fan xëy na waaye il faut qu'on sensibilise il faut qu'on communique waaye il faut ngeen jàppale ñu yéen tam journaliste yi. il si si si moi j'ai fait yéen buy defoon naa formation de l' de des rédacteurs en chef des médias. nga xamante ni télé la wala rajo wala presse en ligne ànd si ak seeni ay représentants yu Bamba Kassé e ak ñoom Migui Marème pour wax leen la protection des données personnelles des enfants. Hmm. li nga xam ne xale moom photo yeeg seen image seen photo yeeg de violence. yéen c'est vrai que vous devez donner l'information parce que dañuy màgg. waaw vous avez hmm. devez donner devez l'information une information aussi juste et vraie mais qui est encadrée quand ça concerne les données hmm. am na solo. am na solo tamit on enfant protégé c'est un enfant qui est à l'école ah parce que est-ce que euh, en collaboration avec la garde des tout-petits peut-être le ministère de l'éducation nationale mm-hmm. yéegi di def ay jéego parce que xam nañu souvent xale yi nekk ci mbedd mi ci dëkk mm-hmm. taax mm-hmm. ci village yi ñuy jógee constat mooy du ñu am jàng du ñu am garde des tout-petits lu mel noonu parce que yéen ngeen envisager surtout au niveau national am des réactions yu mel noonu ensemble au niveau du programme en France et on travaille avec euh, le PIPADHS muy programme banque mondiale bi ma lay wax 42 milliards moo ci nekk banque mondiale bokk ak état du Sénégal dafa nañ 800 et quelques euh, cases yu tout petit yu ànd ak ay cases communautaires école communautaire yeeg ak ay des daara moderne yoo xam dugal nañ ci xale yi dañuy topp xale yi ba def la stimulation précoce di xool seen intelligence ba ci lekk bi daanu matewul te état daanoon du mat mu mm. dañuy wax nañu redoubler waat defa tey fii ma toog di waxante ak yow madame la directrice générale Maimouna Sokh yónnee na Saint-Louis ay table point ay chaise diggante lebal ak ngay ngay ay fa xale yoo xamante ne bi ñu jàng si basam dañuy toog ñu jox leen lu ñu leen di toggalee ñu jox leen ay aire de jeu nga xamante ni

waa commune contre 94 villages. yow ban commune nga bokk Saare Bidji. Saare Bidji yow ban Saare Bidji ban ban la. nekk. ah yow ma sama mbokk du ma xas sama yaakaaroon parce que da ngaa trop pour pël. Kolda la dëkk de. <laughs> moom Kolda la dëkk 94 villages. elle a organisé benn cas de tout la waxal ma ko même. Eh, may mën mi ngi lay dégg elle a la semaine nationale de la case des tout petits de l' enfance yóbbu na ko Kolda fa la defee woon ouverture bi. xanaa xam naa ne wax nañ ko certainement mais dégg na ko te xam naa village bu nekk rek am na fa cinq cas man maa la wax ni man maa la wax ni ma ko loolu man maa la wax ni dégg na ko waxul nag ma def plateau spécial déedéet doo doo def pourquoi nga def plateau spécial doo def plateau spécial pour may mun a loolu ngeen xam di fait non du tout je suis là devant vous xasoo ma da nga ma woo ma ñëw boo ko wooyee mu ñëw toog parce que xam nga lu tax moom sax daf ma ci ëppale xam lu ma ci ëppale parce que dafa yor structure verticale du parti c'est-à-dire les enseignants du Sénégal. Hmm. kon kooku lu ma bëgg bëgg président réussir moom dafa ma koy gën a bëgg. yóbbante ma la. wax dina la woote li ci war dina ko def ñu ànd si ak madame la ministre Fatou Diané. jeex na waaw jërëjëf madame Fall. <laughs> maa ngi lay sant bu baax maa ngi lay gërëm parce que ne da ko bandum

de lui qui fait partie du dessin guerrier de l'histoire de ce pays mon frère j'ai l'habitude dire et je le nañuy tàgg suñu ay doom booy mm-hmm. tàgg sa doom da kay jox jom mm-hmm. parce que boo ko nee sa maam lii la def nga ne ko sa baay la def sa maamaat lii la def day tax moom mu jomb mm-hmm. parce que boo jombee ka nga ragal bu ñëwulee doo ko def waaye boo ragalee ka bu demee danga koy def président Macky Sall guddal fan <laughs> sa jàmm mooy jàmm Sénégal sa sa réussite mooy réussite du Sénégal quoi que l'on puisse que yow da ngay dem après sa way des fi kon maa ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal wér di ko ñaanal kilifa diine yëpp te di ñaanal xale yi aussi dañu gën a daal suñu demee ba suñu kilifa diine ragal a wax. ndax ñu hmm. ragal ku leen saaga. sama doom bañ a aborder sujet boobu na ko. mooy toogaay bi hmm. woyof na. nañu dëgëraat toogaay bi te ñun jigéen ñi la nañu gën a yaraat xale yi dañu leen xiirtal ci lu baax. ñuy waxante lu baax di defante lu baax man am na ñu bokk ci Sonko yaay Khady Guissé Sonko la bokk elle est très waaye man moom baax baax la ñu seqal la ñu waxante. Hmm. politique ku ne àndal ak ku la neex. Hmm. ku ne demal fu la neex. waaye nangalul nit ki mu ànd ak ku ko neex. te mu rafet. merci beaucoup merci beaucoup merci madame Fall. ça a été un plaisir kontaan nañu. man itam kontaan nañu kontaan nañu ci éloquence bi ak culture bi. <laughs> maa ngi nuyu waa Ndar nag parce que ak foo xam nga waa Ndar foofu ma defal leen dédicace spéciale à ah, travers monsieur le maire Mansour Faye ma koy teg ci loxoom di nuyu waa Ndiolofène ñoom Fatou Lo si tey neex waa Ngoxumbaay waa Sanc Ba Lebar Gandiol ñëpp ñëpp pour vous dire que suis une servante du présent je suis une servante du peuple sénégalais je suis une servante de Saint-Louis ma ville natale jàmbaar na li ngeen nga merci beaucoup ñoo ngi lay dig dajeeg beneen yoon jërëjëf euh, fàttali la rek sama yóbbal ci soxna ma dégg na tu as ma balaa may jógee fii dinaa ko envoyer message te kooku gaynde président Macky Sall dina ko def. merci beaucoup merci beaucoup. jërëjëf yi ah beneen beneen yoon ak beneen invité fii ci senego.com. prochainement may mun a si soxla mooy ñëw. incha rabbi <laughs> merci beaucoup.